di euh, présider ndaje bu am solo bi muy joxe remettre ay camions yu ñu tuddee ay balayeuse mécanique balayeuse mécanique nag mooy camions yoo xam ne ñi balaye mbedd bi di ko aspi di aspirer poussière bi di ko dugal si ay si seen ay maanaam mand de telle sorte que ni léegi bi non seulement dana gaaw waaye dana gën a set. mu une cérémonie de am solo tay buñu di jox y a le maire de Fatik, euh, le ministre Makhtar le maire de Mbour le directeur général Cheikh Issa Sall le maire de Pikine Abdoulaye Timbo ak le maire de Tambacounda M. Banda Dièye ñu ñëw jël camions nga président de la république ci politique bi nga xam ni Sénégal non seulement ci un plan Sénégal émergent mais aussi ci il faut set donc il faut ñu jox ay moyens pour ñu mën a setal yi ci loolu nag e dafa am rôle bu solo wax entretien des routes classées non classées ci communes euh,

ñu ngi koy gën a mën a yokk pour que ñu gën a mën a am santé mën a nekk ci environnement boo xam ni dafay set wecc gis ngeen ci COP 28 bi luñ ci wax ci waxum environnement fexe ba nu ñuy dundee ci environnement bi mu nekk loo xam ni day amélioré wu suñu cadre de vie amélioré wu. loolu moo tax mën nañoo wax tey ci wàllum xëy ndaw yi toll nañ ci vingt quatre mille emplois créé na ko. à travers toutes les communes du Sénégal, en tout une bonne partie des communes, au moins 24 000 cantonniers. C'est du Fayoko. Du profiteur aussi, ces cantonniers-là, dès la fin euh, donc, du mois de janvier, nous commencé Fayoko, Madame Tololek nous avons UCG, nous avons wala ñeneen ñu doon avons eu le ndaw euh, nous à peu près 100 000 francs par di bes bo xamantene ne dañ ci gërëm bu baax président Macky Sall mi nga xamne mo njiti rew mi am xalaat bi waye nak xalaat dang koy denk ko xamantene ne dina ci farlu dina am yene mais dina xamit liñ ko donc dañuy gërëm bu baax le ministre Mansour Faye ci taxawayam ci côté collectivité territoriale bi li ko denk mu ngi ci béy di wax ne camion yi ñu ñu jox fay ñëw fekk ci liñu jotta def mooy ñëw ci dëkk recruter ndaw ña fa nekk ak jigéen ña fa nekk di leen fay weer ba pare ñuy toppatoo yoon yi nga xamante ne moo nekk ci ci ci gox yeeg goxaat yi ba nga xamante suuf si du ko jël di ko netwaay di ko bale cat googu defe naa ne day accompagner sax wërgu-yaramu population su ñu nekkee ci loolu nag ay ati at ñoom ñu xam ne liggéey toujours da ngay gën di dem ci kanam dangay gën di xëcc muy gën a baax ñu jënd ay cam jotoon na jox ay commune tey ñuy jox commune u Tamba di jox commune u Fatick di jox commune u ak pikin kon defe naa ne bu ñu yemoon ci benn ñu ngi ñu bëgg a ci fukk camions yi dana tax liggéey bi gën a bar gën a gaaw mais camions yi dana tax it nettoyer bi gën a jaar yoon gis naa léegi ne bi ñu koy pré bi ñu koy essayé camions yi am na ndox mu ci ne ba nga xam ne boo koy nettoyer ci biir dëkk poussière du jóg parce que da koy arrosé ba pare xëcc ko suuf soosu war naa mun a dem sax bañ a yem ci nettoyer mais suuf si ñu fiy jëlee war naa mun a dem sakki sax foo xamante dafa soxla suuf donc gis ngeen ne liggéey la boo xamante ne ala kuliyalin dafa nar a accompagner gox yeeg gox goxat yi ba seen environnement gën a baax waaye bëgg ñu gën a mun a euh, euh, saytu gën a mun a jàpp li nga xamante mooy yoon yi leen defal